asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa duna mbaa yéen a ngi si tawféex mbaa yéen a ngi si jàmm en tout cas man maa ngi cool maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax a baax baax di leen dalal jàmm sur ma chaîne Show TV comme ni ñu koy far defee chaque fois. xam ngeen lan ngeen dul génn ci àdduna. Mm-hmm. mooy benn audio bu may taggee Macky Sall Macky sàll yàlla damaa gërëm sama bopp ci Macky sàll mooy yàlla damaa dimbali ba mosuma koo gëm benn minute man damaa teel xam kan mooy Macky sàll laata muy yor gi ak bi mu ko yoree. Hmm. gis-gis bii ma am ci Macky sàll mooy gis-gis bu mësta soppiku. Hmm. mësta soppiku parce que man damaa xam Macky Sall ne bu dee ci baatin. Hmm. jigut Sénégal. fee mi ngi jiite réew mi. gor yëpp xaw ma ko dul gor de waaye gor yëpp ci coono la ñuy nekk. gars yi tey damay jàkkaarloo ngeen waxtaan ngeen ci manipulation de masse bi ngeen xam ne yéen koy subir ci wàllum politique bi ay yeneen nit ñëw di toog di utiliser benn hype di utiliser ay nit pour positionner wu pour placer wu pour seen ëllëg en fait ce sont yoo xam ne dañuy ñëw toog ne leen yéen la ñuy xeexal ce sont des personnes yoo xam ne dañuy ñëw toog ne yéen la ñuy àndal. son des personnes yoo xam dañuy ñëw toog ni saa yuñ toogee dëgg lañ lay wax te malheureusement ku si nekk si ñoom ñoom ñëpp nag laa muy parti pro Sonko muy parti pro Macky ku si nekk si ñoom ils ne font que vous manipuler léegi nag moo am ay nit ñoo xam ni malheureusement yàlla dafa def nii dañoo du question mënuñu xalaat de dañoo gaaw a gëm nit maanaam du ñu toog di am doute si nit lu muy wax. ba keroot nit ki génne benn affaire mu nekk nag benn affaire boo xam ni xëy na jikko bu rafet la mu nekk benn affaire boo xam ni yariñ la mais aussi tamit nit ki lépp loo xam da ngay toog di ko wax say moroom nekk fa na ngay wax loo xam day dëgg wala dana yenn maanaa on va parler de Cheikh Bara audio yi nga xam ni génnoon na ci waaw audio yi nag moo am ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci woon ñun Sénégalais yëpp dégg nañ ko. Euh, ñu doon xaar li nga xam ni moom moo di réponse am ñëwee fa nga xam ni moom moo di sa sànjoogu ñu dalal ko avec maanaam benn genre euh, <laughs> benn genre euh, mën naa ne sax dañ ko doon jéem a setal parce que lii nekkul woon li nga xam ni moom moo di interview yi nga xam daan nañ ko interview yeneen nit ñi fii dañ doon jéem a setal saa waa ji parce que xam nañ ni le gars a fauté xam nañ ni le gars mu ngi si tort mais dinañ def de telle sorte que nu ñuy def ba lëndëmal sénégalais yi mu nekk benn affaire boo xam ne c'est triste parce que à la fin intérêt benn nit intérêt benn nit tax na ngeen nëbb dëgg li nga xam moom moo di junniy sénégalais yu fi nekk di seetaan seen télé mais bon bref Cheikh Bara nag nangu na ni moom moo wax audio yooyu noonu expliqué leen audio yi nag c'est ay groupe WhatsApp la ko doon waxee. te ba mu koy wax jamono jooj noonu mooy jamono ja problème Adji Sarr ak Sonko newee fenk fël sa la ko waxee mu nekkoon benn nit boo xam ni ba mu déggee ki nga xam ni moom moo di Sonko dafa am ay jiixi jaaxa si ay kàddoom mooy maanaam gëmu ko woon lu tax nag au fur et mu gëm ko dafa jël li nga xam ni moom moo di science utiliser ko ne science à travers moo tax mu gëm ki nga xam ni moom moo di Sonko si wax yi nga xam ni wax na ko mais jusqu'à présent si li nga xam ne moom moo ñëw si ojo yi wax yi nga xam ne wax na ko ba léegi leeralu ko qu'est-ce qu'il a fait il a voulu utiliser li ñuy wax euh, manipulation émotive mooy maanaam dafa utiliser émotion wu ñi koy suivre ñi koy sopp pour mën a réeral li nga xam ne moom moo di sénégalais yi pour muy clair Cheikh Bara pour la première fois nekkoon nit bu sincère fi nga toogoon noonu mooy maanaam ku la xool sa xam ni carrément ni sincère woon si wax yi ngay wax et tu as utilisé d'autres armes pour dévier li nga xam ni moom moo di l'attention bi nit ñi doon xaar si yow pour ñu concentrer aussi quelque chose boo xam ni émotif la comme si que ni yow da ngay xeexal Sénégal wala comme si que mooy loolu en fait li nga wax noonu yépp mooy maanaam 45 minutes lañ la jox pour nga expliquer li nga xam moom nga doon wax si si audio yi gannaaw ba nga toog ñu yëgal ñépp nag ni da ngay ñëw wax mu mënoon nga ñu leeral li nga xam ne wax na ko mais malheureusement defoo ko qu'est-ce que tu as ay troisième mandat wu Macky Sall que ça n'a ak li nga xam ne moom nga wax Sonko fii ni Macky Sall waru woon sax feeñ si wax yi nga xam ne moom ngay wax ngay utiliser li nga xam moom moo di les détenus politiques mënoon nga ko def si beneen vidéo boo xam da ngay ñëw ne da ngay wax si Macky Sall ak détenus politiques yi te nga nit ñi mais malheureusement ki nga xam ne moom moo la doon poser question je répète il voulait seulement bañ la gën a dugal parce que xam na ni carrément ni daanu nga moo tax tey jii nii mu bëgg xaar ba nga ñëw pour nga waxal sa bopp te d'habitude ñun xam nañu Sa Ndiogou nit bu defee dara wala actualité bu amee day ñëw wax li nga xam ni moom moo di xalaatam si façon lépp nag muy waa pro Sonko muy waa Sonko muy waa Macky Sall da wax ay Fouta ku nekk ñëw nga wax kon fii aussi tamit waroon nga wax li nga xam ne moom moo di Cheikh Bara tu as li nga xam moom moo di say excuses ne woo nga ko ñeneen ñi de woo leen te mënoon nga leen woo pour xam li nga xam ni moom moo di seeni xalaat balaa ngay décortiquer wala balaa ngay chroniquer li nga xam ni moom moo di seeni problème mais nag si émission bi yëpp dañ ko koy nangul parce que am na ay nit yoo xam ni nangul nañ ko ko mais mon seul problème mooy tey jii nit bu amee maqaam ak sañ-sañ toog ne lay dafa nekk loo xam ni moom moo di argument ay lay lépp ay fen sax argument la boo bëggee dégg dégg nit bu toogee di fen mu ngi argumenté nit bu toogee di wax dëgg mu ngi argumenté kon tey jii nag même boo jëlee tout ton temps pour préparer li nga xam ne moom moo di say réponse xam nga ne sa réponse bi nii taxawul waaye ñun Sénégal xam nañ lan mooy layal nit xam nañ lan mooy layal nit mooy fen si nit kooku noonu pour mu jëm kanam wala pour defal ko lu baax loolu mooy layal nit maanaam tey ji nii man ma dem sàcc yow nga gis ni maa ngi sàcc ñu nekk ay gaañ ñu nekk ay xarit wala nga sopp ma ma ñëw ñu ne yow yaa sàcc yow nga ne ay eh, diw sàccul de xam nañ ni diw du sàcc diw day julli diw day def lii loolu mooy layal nit ñun Sénégal layal boobu la ñu xam léegi nag tey jii boo ñëwee utiliser loolu naan argumenté gannaaw yow ba nga toogee nga ne képp ku doon layal layal Ousmane Sonko munul lay yow yaa mën a lay man say propos laa wax de yow yaa mën a lay di nga toog jeudi layal Ousmane Sonko layal Ousmane Sonko ba c'est pas tey nga ñëw bëgg changer moo lay boobu noonu ma xam ne carrément yow ndaanaan nga ko am nga kàttan am nga doole am nga fit beneen problème bi nga xam ne moom moo métti si vidéo bi du lenn lu wax bi nga xam ne moom moo nga wax mooy maanaam tey jii nii xam ne si réseaux sociaux lañ nekk il faut xam ne si moment boo xam ne tey jii nii vaar daf fi nekk vaar daf fi nekk te xam ngeen ni carrément tey lu nit wax gars yi danañ dem rechercher say wax ñëw tegalaat la ko. parce que tey boo toogee nga ne nit ñi mën nañ la jiiñ tagg ku nekk mën nañ la jiiñ tagg Idrissa Seck mën nañ la jiiñ tagg Ousmane Sonko mën nañ la jiiñ tagg Abdoulaye Wade mën nañ la jiiñ tagg xalifa Sall mën nañ la jiiñ tagg ñëpp mais kenn duñ la mës dégg nga tagg ko wala nga waxal ko wax boo xam ni d'accord nga si liggéey bi nga parce que loolu nga wax mu di Macky sàll moo tax tey dañuy ñëw ànd ak yow ñu analyser waat wax yi nga xam ni waxoon nga ko ca Macky Sall mooy maanaam ba ngay xawaareel Macky Sall fii nii nit ñëpp di ko dégg nañu dem vidéo par vidéo ñu xool li nga xam ni moom nga def gaa yi nañ seetaan vidéo bi. nit ci àdduna dootu fàtte ne ku tudd makki Sall nekk na fi président Sénégal. Mhm. pont yi stade yi terre yeeg. ak yenn kii politique sax politique politique sociale yoo xamante ne lu mel ni ay euh, DER. Mhm. entrepreneuriat rapide boobu. ak yu bari ak euh, couverture maladie xaw ma nu ñu koy ti mooy. couverture maladie universelle ak yu bëri yoo xamante ne ay biram la yoo xam ne moo ko indi. Mm-hmm. am na lu bari lu mu liggéey loo xam ne man bu dee ci matériel ci mm-hmm. wàllu leneen ak leneen mm-hmm. mënoo taxaw nga ne Macky Sall. deful bilan def na bilan. bu baax. yow lu tax ni nga conseillé Macky nii yëpp nga ñu jàpp nga ñu yaa ko fal parce que conseil nga. Ah, li ko xalaatal de moom moo ko fal. Mor Lo Moustapha Cissé Lo ñoom ñëpp fréquenté naa leen. dégg nga ba ci 2010 Moustapha Cissé Lo fréquenté naa ko lu bari. waa APR rek nga fréquenté hmm. waa APR rek moo tax barki man man daanaka waa APR laa sax. Hmm. Hmm. kon barki damaa gis may ngénte waa APR doo nga fa ñëw. benn parti ñëwu fa. waa APR képp ñoo fa dikk. kon donc daanaka man waa APR laa. boo indee fukki dëgg jël benn fen dugal ci. fen buy ñibbi day fukki dëgg yi. da day buy ñibbi day yóbbu lu moomul. loolu moo tax fen baaxul. xam nga ni lii ah, ñii mooy ñi nga xam ni moom lañu sénégalais yi di déglu ne ñii ñooy analyser des analyses pertinentes si nga tey boo doon analyser des analyses pertinentes ba nga ñëw toog di wax si yow dangaa waroon gën a xarañ si li nga xam moom ngay wax wala tey wax boo xam ne génne nga ko boo koy défendre mënu nga ko défendre de manière plus honnête mënu nga ko défendre de manière plus sincère mais tey da nga ñëw défendre sa bopp layal sa bopp en fait yow tey da ñëw pour layal sa bopp mais comme que yow yaa ne nag ñi nga xam ne yëpp dañuy layal Ousmane Sonko mënuñu lay yow yaa leen daqal lay kon tey jii nii boo toogee pour nga layal sa bopp xam nga ni day gongo vingt sur 20 lañ lay jox dissertation bi mosuñu ko gis pap mu nekk nag loo xam c'est dommage parce que nga nekkoon nit boo xam ni gaayab ñu ngi lay suivre danga nekk nit boo xam gaayab dañ lay déglu gaayab dañ la may nopp mais bu fekkee ni li ngay def nii juste pour neex yenn nit yi. maanaam defoo ko te yàlla taxaw la defoo ko ndax sénégalais yi lay suivre alors la war nga xoolaat sa bopp te yow ak yeneen nit yi nga xam ñu ngi toog que ça soit ay Mati Trois Pommes que ça soit ay Ousmane Tounkara que ça soit euh, yow mii yéen ñëpp vous dans la même sauce ku ci nekk si yéen lan ngeen buggul mooy sa beneen parti perte li nga xam ne moom moo di élection yi parce que bu sa parti perte rek. ku ci nekk wax dëgg fa yàlla dootoo galayaabe ku ci nekk dootoo galayaabe léegi nag de ce fait qu'est-ce vous allez faire même bu fekkee ni li ngeen def gis ngeen ni carrément c'est pas juste pour le peuple même bu fekkee li ngeen def gis ngeen carrément ni baaxul pour la peuple même boo naree toog di fenal peuple bi maanaam di fen peuple bi juste pour am li nga xam moom moo ne defendre seen parti di ngeen ko def chaque fois parce que loolu mooy politique moo tax naa leen ko fii képp kuy wax ci politique. képp kuy dund politique mënoo nekk leneen lu dul naan deret en tout cas gars yi lii moo nekkoon vidéo bi joxante daje si beneen vidéo si yeneen waxtaan King West la woon ak yéen wasalaam. booy si digg bi wala ñu yem taluñu leen liggéey lu métti te boor ñu képp. bari di jaawale toog si dem. ndax mënuñu yem yokk leen ndax aji ñu lépp ñu la gaay di xaati bu fayeku wér booy duñu teg di teg diil si ay diil yu bëgg a